di bokk ak yow bi la jotaay comme ni ma ko junjee léegi rek ci ndoxteel bi dañ koy daal doore ak euh, kuréel bi nga xam ni euh, moom moo juddu démb nekkoon seen première assemblée générale daanaka boobule kuréel lu tollook ci 110 partis euh, ginnaaw seen i kàddu ñu ngi xamal ni ñoo ko boobule alliance yooyu les partis gis nañ si li nga xam nag mooy taxaw Sénégal Khalifa Sall jiite ko Aïssata Tall Sall Osez l'avenir mu ngi ci boobule coalition. Bougane Gueye Dany euh, Thierno Bocoum daanaka nekk na kuréel goo xam ne kuréel gu yaatu la ñoom nag jàpp na ni ni président Bassirou Diomaye Faye bëggee tëgg élection législative yi d'accord si ndax concertation maanaam waxtaan bi nga xam ni euh, moo ci waroon am defandu ko ci waaye aussi ñoom ñuy xamal ni ba moytuwul euh, dinañu attaquer décret bi nga xam ne moom daal di neenal yi les élections ana tey jii nan nga jàngatee alliance bi nga xam ne moom mooy alliance pour la pour la transparence des élections législatives hmm. jërëjëf Sylla Euh, mu nekk kuréel goo xam ne euh, amul solo euh, kuréel la goo xam ne du lu bees. Uh-huh. mboolem ña fa nekk ñëpp réew mi xam nañ leen. Uh-huh. Sénégal ay doomam yeewu nañ. Uh-huh. du nit ñoo xam ne danga nga ne ñii ñu bees lañ ñoo xam ne réew mi am nañ ci ñoom yaakaar. réew mi amul ci ñu benn yaakaar. ñàkk gi sénégalais yi ñàkk ci ñooñu yaakaar moo waral ñenn ci ñoom bokkoon nañ ci élection présidentielle yi. bi demee ci élection yi ñi ci ëpp ci ñoom laleen pare ne mënuñ koo am. ci électoral ci bisu wate ya uh-huh. kon war nga xam ne ay tappale dugg na bu fekkee da nga jàll parrainage dem ci ay élection te yow sa parrainage yooyu mënoo koo am. Uh-huh. ci électoral bu la wateel kon ngaa xam ne war nañ laa laaj foo jëlee ay parrainage. Uh-huh. loolu moo tax moo tax ma ne la ñooñu du ñuy bees. ñii jaaroon nañ fi nekkoon ci nguuru socialiste ñenn ñi xëy na jaaroon ca côté Wade. Uh-huh. ñenn ñi am ñu nekkoon ca Macky Sall ñoo ñoo dajaloo waat moo tax daanaka di ko waxtaanee perte de temps la. Uh-huh. ndax ñooñu la sénégalais yi pare ci ñoom sénégalais yi dafa wàccu. Uh-huh. du mooyu ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon 60 ba léegi. xalifa sàll lu dal Sénégal tey parti socialiste moo ko teg. 40 ans la ñu jiite réew mi. maanaam tey bu réew mi jaaroon yoon parti socialiste gépp dañ leen di attewaat mhm. ndax boobu suñu papa yi ñoo fi ne mais 40 ans nga yore comme réew amoo dara loo fa def bu dee ci capital bi li nga mën a wax mooy pont Sénégal 92. Mhm. ñeent fukki at lu ne xaj na fa nga xam ne tey bu nekkoon nit ñu normal ci ñoom la réew mi doon baaxee. Mhm. tey réew mi da nga doon judd rek fekk réew mi naat ba mel ni Dubaay. waaye ñoom dañ fee toogoon rek di nguuru amuñu programme. amuñu lu ñu liggéey bu ñuy xëyee ku ne xëy sa bureau ñuy xëy ca pale ba ñu nekk ci seen bopp mhm. réew mi genn wàll gi ña ngi ci àll ba di bay ñenn ñi ñoo ngi jàng rajo amul télé amul RTS moo am manifestation du am mhm. boo meree amoo foo ko waxee boo yëgee loo xam da nga war a dénoncer amoo foo ko dénoncer benn télé benn rajo benn journal mhm. nga xam ne tey boo amul doole dëgg say wax mënu faa jaar nga xam ne mën ngaa toog ren ba déwén li xew ci réew mi doo ko xam danga daan gis ñuy nettali loo xam ne daaw la xewoon ñu naan waa lii kañ la xewoon nit ñi ñu ngi daan jëlee information ci gàmmu yi. Mhm. ak màggal yi. ñuy toog di waxtaan ndax ñii dañuy jugee dëkku taax ñuy jugee dëkku àll ñuy toog di waxtaan ngay nettali dara ñu naan lii kañ la amoon ñu naan lii daaw la amoon. Mhm. am na fi ba passé bi boobu socialiste yi ñoo fi nekk yàq réew mi muucu deretu askan wi. Mhm. toog fi ñeent fukki at jugee fi nga xam ne amul ku leen sant baa ku leen di gërëm gisoo ci réew mi taarix da koy bind nag kenn kuy dellu naan. ndeysaan jamonoy Abdou Diouf wala Abdou Diouf ba mu yoree réew mi réew mi ni mu neexee woon. dund daa am lépp am dara amul lépp ñoo ko téye woon Dakar gii ngay gis suuf si yëpp ñoo ko dagg séddoo ko. maison parti socialiste bi gis nga ko ni mu su doo suufu Ndakaaru si nee naa la amuñu moo tax tey bu ñuy laaj naan ay programme ana seen bilan ak yooyu noonu amul benn bilan bu ñu teg ci kaw loxo askan bi. noonu la ñu fi nekkee woon ba ñu fi jugee Abdou Diouf lu baree bari mu soppi ko. Uh-huh. Euh, liberté d'expression mu indi ko dëkk bi doog a yeewuwaat tuuti nit ñi commencé bàyyi xel lan mooy réew. Uh-huh. mais dañ ñoo jàppee woon askanu Sénégal comme ay bàyyi ma ñoom ñoo nekk ay nit. Uh-huh. ñoo ñu ñoo dajee woon démb ak ñenn ci ñoo xam ne ñuy taxawal lañ rek ndax euh, koo xam ne tekkiwoo ci réew mi dara. musoo doon chef de quartier musoo doon délégué de quartier. musoo musoo musoo doon député musoo doon dara lu dul aw làmmiñ rek nga yor di wër di wax di mbelele li groupe boobu ñoo dajee groupe boobu tey lenn ci ñoom boo leen seppee lu yàqu ci réew mi dañ ci am part de responsabilité. Mhm. ñenn ñi moom dañoo xamul seen bopp. gis nañ ci ñu bëree bëri ñoo xam ne eh, élection yi jàll. Mhm. war nañ caa yeewoo. imaam imaam yaa yaa yaa ngi wax dooguma la nga baal ma yaa ngi wax parti socialiste xëy na loolu ñu mag ñi ngay waxal. Mhm. mais am na ay ndaw yoo xam ni bokk nañ ci boobule alliance bi nu duggee si élection euh, yàggul. expérience bi xëy na xaw na des euh, ku ci mel ni Bougane Gueye Dany mi ngi ci biir Thierno Bocoum Anta Babacar Ngom ñu si bëri tey ji nekk ay ndaw bokk la ci boobu alliance est ce que tey ji yaakaaroon ni bloc bi nga xam ni war na ci bu ñu ko defee euh, duñu indil euh, jafe-jafe régime bi nga xam mu nekk en place yow sax bu ñu defal bloc mënuñ laa indil benn jafe-jafe giñ naa ko ci alxuraan yi ñu bokk bloc boobu yow mënuluñ la dara xam nga lu tax hmm. ñi nga tudd ne ay ndaw lañ ndaw ñu jëmul fenn lañ ndax li tax mooy ñoom luñ teg ku ci doon député ak kan moo ci. Eh, ñenn ñi ñi ñi nga xam ne moom jàll parrainage da leen a taf ne boo gisee ñu bëri tëb di dal xam nañ ne élection anticipée yi ñu def ci assemblée nationale bi du am parrainage. Mhm. moo tax ñuy tëb di dal xam ne bokk nañ waaye tey bu ñu ne woon ñu ngi ci parrainage ba duñ jàll ku mënul jàll parrainage musoo jàll parrainage. mënuñoo mhm. xam yow lan ngay peese ak lan ban pouvoir nga am ci biir réew mi. Mhm. lu aw làmmiñ daan am nga ko làmmiñ di wër di wax ak ñàkk gëm yàlla ñàkk gëm yàlla gi mooy. fal gi yàlla fal jomaay ñenn ñi gëmuñu ko ñenn ñi ñoom euh, dañuy wax ne boo nanguwul dogalu yàlla nag da nga iñaan tax mm-hmm. dañuy innal xasada laa yasuudul la ku iñaan du nekk sang ba yow ma xiyam mm-hmm. saa yu yàlla dogale nga ne dogalu yàlla bi neexuma jàppal ne yàlla nee na yow moom ba keroog ñu lay dugal ci biir bàmmeel doo mas a nekk sang mm-hmm. doo doo doon patron wu kenn daanaka rek am na yeneen yu ñu ci teg waaye mbaam lañ lay jàppee moo xam parce que dogalu yàlla nga nanguwul. Mhm. moo tax ñenn ñi di tëb di dal ñii ne ñenn ñu jàlloon parrainage sa mënuñoo leen woteel tollu ni seen parrainage. Mhm. bu ñu defoon loolu maa ngi koy invité Moussa Wade sax mu am yum ci réel ndax am mhm. am nañ ñoo xam ne ma ngi ca woon ca ñoom doon leen jàppale benn côté ba yàlla dogal ñu jàll parrainage sax ba ñu demee élection mënuñu am lañ seen parrainage boobu loolu dañ ko war audité tekkiwuñu dara ci réew mi moo tax ma ne la ñooñu bàyyi bañ dem élection. Mmh. xam nga sa ndax euh, dañ naan tungulu du teew ñu netal parce que élection yi ñu génn. Mmh. dafa leeral lépp. Amadou Ba nga ñëw jël sëñ Moustapha Sy troisième ak ñoom gars yi kenn ku ci nekk ñoom Idrissa ak gars yooyu la ñu jot am. Mmh. xam na leen fi ñu toll ci réew mi réew mi xam nañ fi ñu leen toll ñoom. Sénégal moo moo moo bale ñooñu ndax xam nga lu tax mooy euh, nit ku nar a gudd fan. wala gone gu nar a gudd dëgg ni ñu koy waxee da ngay nangoo diglu ay mag. mais ñooñu nga wax naan ay xale la ñuy dugg ca biir mag ña ñoom ñoom ñoo yem ñoo bokk gis ñoo bokk benn xalaat. bokk mhm. ay gis-gis bañ demee election yi ñëpp maasee dem ci coalition Diomaye. Mhm. am na ñenn ñi dañoo taxaw naan dañuy xaar deuxième tour réew mi ñoru la bu doon ne Macky sàll moo la ñor. Mhm. ak ñu jëlee fi Macky sàll doo toog naan man damay xaar deuxième tour dara ñoru la ci buy deuxième tour di am ngay dem ci. Amadou baax ca continuté ba. moo tax bu ñu yàggal jataay débat bi foofu amuñu solo. amaluñu njëriñ réew mi mosuñu amal njëriñ réew mi ñu ci jotoon a jàll dooni député. lu ñu def ensemble dara léegi nag boo jaaree ensemble bi benn mandat. sénégalais yi bu ñu deelaatoo bay wate réew mi dañoo toll ci foo xam ne ñii di politique gënuñ leen a yeewoo. xay na dañoo jël politique def ko ñoom mécc ñeneen ñi nekk ci la ñu war a nekk waaye gënuñ leen a yow te ëpp ñu leen information mhm. te réew mi léegi ñooy wote moo tax ma ne lee bu ñu àggee danañ xam seen bopp mais mais le 27 ñu ngi woote ab manifestation bu am solo fële ca place de la nation waaw gis nga ba nee naa la ba léegi 19 mhm. candidats yi ba élection yi jeexee ba léegi xam nga déggoo leen mhm. boo xoolee mooy euh, victoire bi ak ni yàlla dogalee moo doy waar moo mhm. tax boobu ba léegi boo xoolee ci nelaw lañ nekkoon fi ne ñi ngi roog a ximbiliku sax di xool ñuy dajee naan waaw nañu dajee benn rassemblement benn coalition benn li benn laa ñoom mhm. ñu xam ak seen mbokkee ba ca seen téeméeri maam yi ca ginnaaw ñu ñu dekkal leen ñu def benn bolok dara lañ mënul ci coppite gi nga xam ne yàlla moo ko dogal ne nafiq yi mhm. ak sàcc yi ak band yi wuyu yi nga xam ne ñoo nekkoon ci réew mi 1960 ba léegi yàlla nee na loolu dina jeex takk ñu àtte leen ña cay dem kaso dem kaso ñañ war a nangu alalu réew mi ñu nangu ko réew mi tegu ak njub Mhm. alors euh, Imaam ginnaaw loolu aussi euh, maître ngañ Demba Touré naka Demba def na benn confrance de presse bu am solo euh, mu nekk li nga xam ne nag moo di la coordinateur jeunesse patriote du Sénégal JPS. Euh, ci boobule conférence presse am na kàddu yu muy yëkkati jëmale ko rek ci ki nga xam ne moo di euh, Bougane Gueye Dany mu koy woo euh, ci li nga xam ne moo di benn débat public débat boo xam ni ñoom ñaar ñoo koy daal di bokk moom aussi bu ko neexee nee na ko organiser fële ci Sen TV wala mu organiser ko Sen TV boole seeg li nga xam ne nag moo di ay journaliste am ana tey ji nan nga mën jàngate proposition bi nga xam ni Ngagne Demba Touré def na ko jëmale ko rek ci njiital gëm sa bopp. Hmm. foofu it bëgguma fi parce que daal président de la république. nommé nañ ñi muy nommé. li ma bëgg wax mooy Ngagne Demba Touré. Mhm. na dem liggéey bu mu topp ci ay ñoom gars yi nga xam ne daanaka di wax ci ñoom perte de temps la muy mhm. ñoom Bougane ndax aw làmmiñ rek la am di wër di wax. Mhm. dama laa woo ci débat public ak Bougane ba mu dalee wax léegi kenn daa xam kañ la lan la yàqal li nga xam ne mooy li yàlla dogal. dogalu suñ borom bi moom lan la ci man wax na guddi wax na bëccëg. gis naa ko sax mu dem Touba naan leen seen seen jàngoro maa koy saafara. dafa am loo xam ne yëpp yoonu murit la ak yëpp Serigne Touba. Mhm. li yoonu murit toll ci kaw suuf nga xam ne damay wax toujours ne liñ soxla lépp muy alal mu ngi fi. Mhm. lenn rek moo manqué mooy organisation. mais bu dee eh, lu yoonu murit soxla ci milliard mu daje. Mhm. kon bu ñu ko organisé lu ñu bëgg mën nañ koo def lu tabax Masalikul Jinaan tabax université ba yaakaar naa amuñu problème boobu. kon organise problème organisation ak jël alal ji teg ko ci loxo yu sell ñu doxal rek moo des. waaye am buggaan mu ne cëpp taxaw fee naan seen i problème man maa koy régler te fii nga gis ñoo xam ne ay emploi yoo xam ne doon nañ jooy naan kenn fayu leen mhm. ah yow yow fayoo say emploi ba pare naan yow nu laa bëgg kii yow bi ñuy tabaxal bi ñuy yëkkati ay Masalik ak euh, ay ay université Cheikh Ahmad bamb di ci defi milliards foo nekkoon mhm. ak yeneen ak yeneen yu bëri dafa am ñoo xam ne ngis sa lañ man mhm. maanaam lu mbooloo di gis mën nañ caat yëkkati aw 1000 francs sànni ko ca waaye bu ngeen wéetoon ci néeg mu wóor la ne aw 3000 nga soxla ci ordonnance mën nañ la ko bañ a jox réew mi dafa bëri ñoo xam ne noonu lañ mel bu ngeen wéetoon ci néeg nga soxla ordonnance su 3000 duñ la ko jëndal waaye bu réew mépp yuuxoo ñu génn ñoom daane ñun ñoo def lii mooy lii xew barki dee moo njaay ca Touba ñu naan waa Barthélémy Dias ma ne du dëgg c'est faux loolu sax xay na waxu mooy euh, euh, inondation ba ak ya fa jot a xew ak yooyu euh, ñu ko bëgg ko politiser ak récupérer ko moo tax ma ne ngañ dem ba Touré. Mhm. na dem liggéey yi am na liggéey bu bu koy xaar. Mhm. ndax patriotes yi nga xamante ni bii ñoo jaay seen bakkan. Mhm. ci ci ci ci régime bi ñi nga xam ne dañoo exilé ak ñi nga xam dañoo faatu ci géej gi. ak ñi nga xam ne tey dañoo jihaat ba yàlla dogal Bassirou Diomaye toog. nañu satisfaire taxawu xale yi loolu mooy liggéey bi waaye wowuñ ko ci ay débat. très important alors euh, imam euh, dañuy daal ñëw ci.